ki nga xamne mo moo bind téere bi moy man mi mooy Ibrahima Mangane jangé nañu ci daara yi ci all bi fi jangé nañ ci école yi ci all bi jangé nañ ci daara yi fu melni Touba angale mel ni Kër Malick Sarr ci angale bi encore ñu def ndar sen ci biir réew mi fi jang nañ ci ay barab waye suñu jang deug dal ñu ko mottalee ndar ndar def nañ fa 90 comme ni ko mbokk mu waxé ba 95 ci lañ fa doro ko matière yi ñi jang yépp itam wax deug ci xéti matière yi muy yi xamné ñoy yi gëna euh ay yëkëté ku ci njang mi mom lañuy tuddé njang mu mi muy tafsir bayan, maani balaha, arut euh, sarfu euh, nahwu yu mel nonu nga xamné yépp ya nga xamné mo ci nek darñel ci téré yooyu yalla. dogal na ñu làq ko ndar lañ ko ci katnu yalla yàlla defal nañu sutura itam ba yooyu yëpp ñu ngi koy jàngale waaw yëpp ñu ngi koy jàngale ba miraas yëpp ñu ngi koy jàngale manteex yooyu yëpp ñu ngi koy jàngale loolu yàlla dogal téere bi mooy e, bàyyi baayisiin fii asaari saalikiin bàyyi baayisiin fii asaari saalikiin mooy yee ñiy gëstu ci jeexitalu ñi sooboon ci yoonu tasaw noonu laa ko tuddee téere bi maa ngi ko liggéey ci nettali histoire Mame Mor Khoro Dia fi mu génte woon Serigne baa ak fi mu dajeeg Serigne Touba jaar-jaaram ci Serigne Touba ba euh, histoire bi nga laal noonu ci yoonu murit mooy tëj gi ko tëjoon ci kaso Kaolack bi génnee giñ ko génne fi mu demee woon baati xolle histoire Mame Mor daal ci gàttal ba fi mu sancee daaru ba fi mu Mame Mor génnee àdduna ak maanaa taale bi yi mu àndaloon loolu lañ def ci téere bi ak Cheikh Moussa wooteem li ko déparé 61 1961. yëngu yëngu ay mbiram yëngu-yënguy mbiram. Mhm. ak liñ xam ci woote bi e, fi mu jógee. 83 doonte jiitu na ko sax. Mhm. Euh, ba fi sëriñ bi e, wàccee liggéey. Mhm. ba tey ñëw na ci téere bii. kon dafa mel ni ñaari histoire yi. moom la boole. waaw ten téere bii moom moo bi tanbihu zaman fi talbisil ittiba tanbihu zaman mooy yee jamono fi talbisil ittiba ci leunt mana topé manana top da bari ay leunt leunt légui nak leunt leunt yoy pour nit ñi mëna a ci leunt lënt yi ba mëna jaar ci yoon wu leer motax ñu liggéey téré bi téré bi mom limi xamlé moy manam, euh waxu Cheikh Moussa Cheikh Moussa ci bom dafa am wax yo xamné mom moko doon wax ci dundam wax yoy yépp nak lañ dajale def ko ci téré bi raxul waxu kenn waaw raxul waxu kenn yépp waxu Cheikh Moussa la xëy na am na ay leeral rek waaye waxu seex Moussa kese la waxu keneen bokku ci waaw beneen téere bi mooy tax taxqiqu ilmu tawhid bi an alquraan huwa la mooy dëggal xam-xamu tawhid ci liy wane ne alquran mooy solution waaw maanaam solution bi tax ñu mën a dëggal tawhid aqiqa alquran moo ñu koy jox léegi téere bi loolu la dikkee maanaam xam-xam bi Cheikh Moussa woote ak li dëggal li mu woote ci alquran ak sunna moom la indi ci téere bii maanaam woote bi téere bii moom boo ko yëree rek xam ni sëriñ bi woote incha allah bi itam loolu lañ ci taxañ waaw su ko defee am na yeneen téere yoo xam ne tam defar nañ ko dañ ko móolagul waaye su génnee rek incha allah danañ ko tasaare téere yi nag benn bu nekk 1500 lañ koy weccee ko waaw 1500 lañ koy weccee ko ku ko soxla ku nekk rek ñu ngi ci ñenn ñi ci mbokk yi ñu ngay pare pour def ko français ak anglais xam naa ci lay gën a kii incha allah waaye en attendant daal arabe bi moo amagum waaw ah, waaye daal euh, fu mu ci toll rek eh, ñi ko soxla dañ ko xam soobee yàlla. waaw téere yi moom jamono bii moom ku ko soxla daal ci man nga koy amee euh, suma numéro téléphone 77 233 02 00 même ñu ngi ko def ci téer yi euh, barab yi ñu ko muulee tam ñu ngi ko def ci téere yi incha allah.